Première photo. ah kii kan la <laughs> ah di ba nga demee màkk la. waaw ko ci ci écran bi Pierre. Pierre da Silva moom nelaw rek lay def. lay mhm. <laughs> non non da ko mu affiché ci mu ko à à l'écran voilà c'est ça. lii kañ la woon. lii euh, ci période Covid bi. Mm-hmm. bi ñu tijjee possibilité umra mhm. ma dem te mu nekk sama ñetteeli yoon xaw ma sama ñeenteeli yoon mhm. saa yu ma amee possibilité wala gis li ma jaaxal mooy nëbbatu nànk dem ñaan mhm. daanaka c'est l'un de mes endroits favoris macha allah yàlla na yàlla na ko ñaan en ci mes mu kara beneen photo Pierre Pierre da Silva waaw kan moo leen jox samay photo kii kan la. góor c'est l'imam ratib mhm. de Kolda. Mhm. biñ koy jagleel benn oto. Mhm. pour dimbali ko ci déplacement am yi. ah yaa ko may oto bi. waaw ci ndigalu président. parce que jaaroon na fa diggee ko mu dem ba fàtte ko ma fàttali ñu fàttali ko ko <laughs> mais kon ko mënoon naa ko ma def ko ba pare ne ko président. lii nga waxoon def naa ko. Mhm. te ci sa coobare yaa ma ko autorisé ma def ko. Mhm. xam naa nag sant na ma ci gërëm na ma. macha allah affaire de. <laughs> non affaire lii lii lii boo koy def. c'est normal. c'est plus que normal. Mhm. parce que ku xam kii lu muy dangi dangi pour régler de question lie ak euh, lu mu doon parce que c'est l'imam ratib lii buñ ko doon def ma defaat ci fukk bu ma ko mënee. parce que ñii c'est des régulateurs sociaux. Mm. te ñoo ñu téyal suñu suñu équilibre social. Mm-hmm. donc dama koy sant di ko gërëm di ko nuyu au passage nuyu famille am yëpp. Mm-hmm. mu ñaanal ñu bu baax a baax. waaw waaw mm-hmm. noo borom mbir la. yàlla may na ko trop. mu ñaanal ñu bu baax a baax beneen beneen photo Pierre da waaw man nag murit laa te jëmmi ji toog pour man sëñ Tuubaa la rek. ni ngi am nii ni ngi am nii dafa rëy de. waaw xam nga ñàkk xam nit. parfois man bëgg naa ko mu tëma. non sëñ bi moom macha allah te sama rakk jooju tamit nekk wetam muy turandóoram Muntaxa dafa Juuf mm. sama xarit namm naa ko loolu d'ailleurs dégg mm. naa ñibbisi na mu yoon Amérique mm-hmm. waaye sëñ bi moom ñaanal ko mu yàgg fi te wër amiin amiin borom mbégte mi dégg nga li mu wax mm-hmm. kilifa mm-hmm. da koy bàyyi da koy bàyyi sa bopp bàyyi ko boppam ki mu ko wax ñun noonu lañ mës a def ci moom mm-hmm. ak ci Macky Sall mm-hmm. donc sant yàlla yu moom macha allah macha allah foofu rek laa mën a borom mbégte bi yàlla na ko yàlla yàgg fi <laughs> yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi delloo te mbàkke dëgg dëgg aw ci sago mm-hmm. beneen photo Pierre ah xamoon nañ ne photo bi dina ñëw. non bëri na ci bii moom dañaa xale naan xamoon naa ne di ñëw. xamoon naa la wax benn na la ko way xamoon naa ne di nga ñëw. boobu noonu dinaa la wax benn anecdote <laughs> président ñëw na ba seetlu ni saa yi ma koy gis day fekk ma bàyyi karaw tuuti. Uh-huh. bi may njëkk woo bi ma jëlee fonction mu ne ma j'espère que watu nga <laughs> donc pour wax la ni. Uh-huh. gis dara mu fàtte ko. bii foog naa après dénouement crise universitaire 2018 la. Uh-huh. te ñu liggéeyoon ci bu baax. Hmm. amuloon nelaw amuloon dara boo gisee samay stern saa nga xam ko. sànq li nga wax dëgg la de. Hmm. ku bëri affaire la. Hmm. <laughs> waaw bëri affaire bu dee ci lijjanti lu jëm ci réew mi te mu amal nit ñu njëriñ nangu naa bari affaire. macha allah beneen photo Pierre bu nekkee am na Pierre da Silva sama xarit. <laughs> ah. bi fi tamit bi tamit bi tamit xamoon nañ ne dina ñëw. <laughs> waaw bii moom. bii c'était les législatives de 2017. xam nga bëri na jaxasoo biñ ma nommé ku nekk di génnee mais gis na jëmm ji aw ma sagu ci moom. loolu rek laa mun a wax. c'était les législatives de 2017 on faisait le point am ku ñu sàcc photo ñu te boo gisee ni mu téyee sama loxo sax. Mhm. nga xam ne maa yoon ci séance d'explication. Mhm. parce que moom day day lii rigoureux de boo deful li la war mu lijjantil ko mhm. donc euh, gëm naa ni. Sénégal daal soxla nañ ko. ba ci kanam lool lool lool lool. <laughs> waaw. booy wax si Amadou Ba sax day gis sa bët yi di senti. non c' est ah extraordinaire. Ah bëggeel bi. c' est quelqu' un qui m'a marqué. Mm-hmm. dans tous les sens. Mm-hmm. te du lépp lañ fiy waxee parce que day niroog. Euh, mm-hmm. day niroog leneen. waaw wala cat da da cat cat cat da bëgg mu seexlu <laughs> gëm naa ni daal Sénégal soxla nañ ko. pour la stabilité de ce pays. pour euh, la continuité des projets et programmes. Mm -hmm. On a besoin, on a besoin de cet homme. Nous compétence, sommes... intégrité. Mais... mais te gëm administration aussi mais j'espère que dina ñëw déclic quand même ça quand même Amadou Ba il faut mu ñëw toog fii quand même nettali ñu un peu. bu yàlla parrainage ñëw. ah non ah bu yàlla parrainage kay dina ñëw moom Amadou Ba moom bëgg nañ ko am déclic moom ça moom c'est c'est une demande. je pense que dinañ ko jottali dinaa ko jottali. waaw parce on a vraiment envie de connaître l'histoire de cet homme calme. Euh, bi a besoin de savoir. c'est une demande. c'est extraordinaire donc di nga ko dox. waa dinaa ci wax. d'accord ok donc c'est bon. waaye ëpp ma la fa ay bunt. <laughs> donc c'est bon beneen photo bu nekkee am na. ah kii sama papa la. Uh-huh. Pierre Goudiaby Atepa. ah c'est mon père. le bâtisseur. kii. Mm-hmm. daanaka bi may doog a ñibbi lii. boo gisee ni ma bëree ay dossiers. Mm-hmm. suñu cabinet eh, bu tudd Bird bi ma doon liggéey. dama jaaroon fenn euh, en pour ay dossiers moom mu ñëwoon foofu ñu daje. ñu jël photo bi nag c'est un homme m'a marqué à tout point de vue mm. pour beaucoup de raisons notamment ci li ma ñibbi si tijji sama cabinet mu bokk ci ñu njëkk ñu ma confier dossier dans le mm. privé mm. ma préciser Donc euh, je lui rends vraiment hommage. Atepa, le bâtisseur. Et je vais me battre corps et âme pour qu'il soutienne notre candidat. Mmh. Parce que je sais que jàppee na ma ni doomam te je sais que pour l'intérêt du Sénégal am na li nga xamante ni buñ ci waxtaanee dina ci def dara te dama ko koy ñaan ci kanamu ñëpp am na cër bi ñu ko jox ci biir Sénégal am na cër bi ñu ko jox Casamance notamment à Ziguinchor. Mm-hmm. bëgg na amu prononcé wu jàppale ñu ci élection yi. Mm-hmm. beneen foto bu nekkee Pierre euh, photo yi des na. <laughs> bii c'est au lendemain de ma défaite des ma jël velo dugg ci biir dëkk bi di nuyante Koldoa yi kontaan ci liñ ma may ci ay voix. communication rek lay def. c'était pas c'était pas l'objectif. <laughs> parce que nit ñi dañuy jàpp bi dafa rafet moo tax. c'est original en fait. nit ñi dañoo jàpp ni booy demee élection ba perte da war a mere ñi fa ñi la jox man dama doon sant di gërëm liñ ma jox première participation amoon naa plus de 4000 voix dem jëm kaw am ay conseillers. Mhm. kon gëm naa ni kon doy jox nañ ma nopp. Mhm, mhm, donc ma génn à vélo di reetaan ak nit ñi di xaxataay gars yi naan la prochaine fois yow la. yeneen ak yeneen di ci sante yàlla. parce que gëm naa ni c'est une source de motivation. voilà cest di dire deux jours. différemment ak ñeneen ñi gagné rek ñibbi Dakar <laughs> man dama fa toog. mi ngi ma sama grand la. moo tax sama grand la na ma xam naa mais dama ne. élection bi ñu jàll rombe man damaa toog biir Kolda. Mhm. saafante Kolda mhm. woo samay militant remercier leen ñaan leen nag. ci njekk tamit. ci njëkk. <laughs> waaw nañu jàppale équipe municipale municipale bi fi nekk. Mhm. mais on garde notre posture mhm. d'alerte. Mhm. bu ñu defee la ko sudul noonu yaakaarloo waat ak ñoom. presque maa ngi nii léegi ma deux ans. musuma prononcé wu ci liggéeyam. parce que li ma ci mënul jàpp bugguma ci yàq. parce que je sais am na lu bëri li nga xamante ni war nañ ko mën a defal Kolda ñun doomi Kolda yëpp. beneen photo bu nekkee am na euh, Pierre de Silva. bii moom mooy bu mujj bi ba nga demee woon pour kii wane sa sa doole. noonu pour pourtant bii. Ah. suñu doxantu la woon rek ci législative ah ci législative yi la ah, kon bokkul. bokkul hmm. boo bee bee moom leneen la mais dama damay sant Koldois yi saa yu ma saa yu ma leen soxlaa nit ñi dañuy génn. Hmm. saa yu ma leen woowee dañ may fekk si te bii yoon woo naa leen pour ñu jàppale ñu candidat Amadou Ba jàll avec un taux pour Kolda minimum. de soixante dix pour cent dama koy ñaan. yàllaa xam kan mooy voté à quel taux <laughs> mais leer na ma ni Kolda moom bu ci yàlla àndee le candidat Amadou Ba passera avec un score extraordinaire <laughs> samay mag le ministre Moussa Baldé est de faire un excellent travail. Mm-hmm. le ministre Bibi est en de faire un excellent travail. Bamol Baldé est en de faire un excellent travail. Fabouli Gaye est de faire un excellent travail bugguma citer ñenn ñi balaa ñuy xam fu ñu jëm mais ñu bëri ñu ngi def un excellent mhm. travail. Mhm. di defaat moom plaidoyer rek. Fabouli moom bu Karim ñëwee du dem wala. Fabouli est un soutien de Macky Sall et un soutien de Amadou Ba. cent franc génnu ci. Mhm. maanaam dara génn ci soutien daf koo def parce que loolu la gëm. loolu benn la te may profiter di de encore une fois. nañ ñu jàppale responsabiliser ñu plus de Koldois. c'est ça c'est dans l'intérêt pas de ces élections sa va au-delà. mais dañoo jàpp ne. li ngeen am nag loo bëgg nag. <laughs> Touba eh, Mbacké premier département li ngeen am nii yëpp amuñu ko. ngay bu ñu déggal am na ñeneen ak ñeneen xam nga eh, man je suis un partisan. de du management participatif. Mm-hmm. lu kenn mën fukk ko dàkk. Mm-hmm. président dina ma dégg. Mm. à travers cet appel. le premier ministre je lui en parle je sais que dañuy gérer ay équilibre mais man je sais que autorités yi nekk Kolda bañuñu loolu man bañuma ko keneen bañuñu ko il faut plus de leaders pour relever le défi du sud ñun am na lu bëri lu ñu rawee uh-huh. on a du rattrapage à faire mm. te pour que ñun ñëpp ñu mën ci jàpp il faut ñu bëri c'est une bonne chute fi la ñuy yemale euh, émission Déclic euh, tey euh, di gërëm bu baax a baax Abdourahmane Balde Ndoura. Ndoura Ndoura.